fu mbett di yegg rek yegg na fa nit ko xam ne mënuloo am foo taalee togg amuloo foo tëdd sa lal yi ndox yi nangu nañ ko ak say photo te amuloo feneen foo dem xanaa ci mbedd bi ngay fanaan li metti na état ku ko yore gouverner c'est prévoir danga war a séentu lu ñëwul xëy na moo tax président ci vision mu ne woon dafa am plan décennal ci fukki at bëgg naa kenn du fi waxati affaire yi mbënd jël lu toll ci la ma jox sept cent cinquante milliards dinañ ko ci def ndax li li ñu fàtte ko waaw ndax def nañ ko ci loolu ñëpp di laaj mooy question bi ñëpp di mais moom sax mu koy laaj ah mais mais mais mais gis nañ ci benn vidéo bu nga xamante mi ngi commence di circuler même dans les réseaux sociaux bu nga xamante ne dafa wax ne avant muy ñëw euh, problème mu mbënd mi daf fi nekkoon mais bi mu ñëwee en l' espace de quatre ans rek la na ko mu féete boor. kon lu tax tey moo mën. moom moom lay waaye boo déglu dof yooyu xam nga ànd ak nit. parce que moom moom moo wax. déglu ma bu fekkoon jëlee nañ ko fi li fi dal li kon li ñu dal tey de moom lu danañ ko dal xam nga ñoom dañuy nax seen bopp. moom moo wax de. kon mu ngi dox boppam ci audio bi. Mhm. bu ko bu dee dindi ko fi da doon bàkku yàlla dogal koy bàkku. Mm. yàlla subhanahu wa taala li gën a bañ mooy nit koy bàkku nit mënul dara. yàlla rek a ci kattanu yàlla mënoon na ñu ngi ñu ngi jéem avancé nañ waaye mbir na yàlla wan la tey jii dafa dara da ngaa a wax te sóoraale woon yàlla bi ngay wax def sóoraale woon ci yàlla tabaraka wa taala da que mu ne mu ne teg na ko fee tuddul yàlla yàlla de ko dara xool ndax teg ko foofu loolu si mu ne loolu baatin la mais indépendamment de cela quatre ans plan de dix ans non ci quatre ans nga ne rek rek la yëpp est que loolu am na c'est pas cohérent bu dee plan bi pour 10 ans la 4 ans mu taxaw rek danaa yëpp kooku muy ndax boppam nañ bàyyi slogan yeeg bàkku yeeg ngan na ngan dalu soob foofu aussi leneen lañ lay laaj mooy en tant que député maître mooy euh, euh, action euh, mooy contrôle de l'action de l'exécutif xam nga bu fekkee ne dañu yëkkati xaalis bu toll noonu def ko ci plan bu mel noonu nar a impacter directement la vie des concitoyens des populations mu def huit ans muy doog a laaj un rapport détaillé loolu tamit euh, ban jàngat nga ci am. loolu mooy laxisme loolu mooy légèreté ndax lu toll nii sept cent cinquante milliards. sept cent soixante sept plus précisément. waaw mhm. noo koy defee ci bërëb yoo xamuloo nu muy doxee yow kay dina jaar sa kaw ay yoon yoon. mais est-ce que def nañ ko ci sax. dóorkat yi ci réew mi loolu ñaar moomu na am. Mhm. soit def nañ ko ci ay dóor am na. dóor mooy lan. mooy fu ñu war a dugal cinquante milliards. ne 100 milliards lañ dugal. surfacturation. surfacturation détournement de deniers publics. Mm-hmm. loolu rapport du ko réglé. Mm-hmm. parce que ñooñu ngay def loolu rapport dina fexe ba maquillé ko ba doo gis dara. lan la lan moo ci war corps de contrôle jusqu'à l'extinction du soleil sa kaw. corps de contrôle la yi la ak ak ay section recherche. ñoom mm-hmm. dafa leen poser question bu woon na xam da ngaa sàtt xaalis. oh ñu nga jox fi nga commandé woon luy jar 1000 francs nga commandé ko 75000 te 1000 francs la woon. yooyu bu paree 750 daal di mat bu fekkee defoo sax 400 milliards 750 nga déclaré loolu président mënu koo xam. mais loolu nag il faut corps de contrôle yi ak enquêteurs yi nga yi wut naa recherche ak DIC section ak sûreté urbaine ñooñu mën a entrer en action. oo gars yi laal Sénégal yi saa wala xaw ma on loo def. kañu xool marché nga joxe dañ vérifier prix parce que plan plan Orsec bu amee par exemple. xam nga dañuy du am ay appel d'offres. amul contrôle waaw. foofu moo dama ne toujours toujours le bon le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mhm. bu ko defee dina am xam ne dañuy am ay marché gré à gré. ay milliards. affaire yi commencé neex. fekk ñee ñu ngay dee am ñoo xam ne ñoo am bénéfice bu nii la yem poche bi dee la. Mhm. yooyu la ñu war a moytu. Mhm. xalaat askan bi paap. àq yooyu sax mën a mën a jur lii. ndax boo détourné ay milliards. ba nga fa dee toog ba ba ba gouvernement Sall jeexal yàlla moo lay toroxal. mooy indi mbënd mu mel ni nga xam ne defoo fi woon dara wala la nga waroon def defoo lépp wala xaalis la joxoon da nga ko détourné wala dugaloo ci lépp parce que actuellement question bi ñëpp di posé wu mooy est ce que xaalis bi dugal nañ ko fi ñu ko war a loolu la daaw da min wax léegi moo tax ma ne kon deux points am na mhm. ma doon expliqué ne bu fekkee dugal nañ ko ci kon mun na am am na ay malversation mhm. mais pour ñu dëggal ko il faut corps de contrôle mhm. yi ak enquêteurs chevronnés yi entrer en action waaw ah, mais ñoo xam nga ñoom mënuñu auto-saisir il faut que. dégg ma la wax voilà. mais bu yëgee procureur. waaw mu def soit transfert de la gendarmerie. Mm. se plainte de l' état. comme si yow partie civile moom moom xaalisam. xam nga mën na entrer en action. Mm-hmm. enquête gars yi dugg contre contre aussi. Mm-hmm. ñëw dugg du fouillé. Mm-hmm. loolu yëpp ñooñu seen liggéey lu ci bëri du def dara lu may nelaw.